Mm. mais mais mais mais Pape euh, tey jii euh, su ma ñëwaatee ndax euh, semble yaa ngi koy yaa ngi ciy insister. Mm. tey donc président Macky Sall dafa woote woon dialogue national. Mm. ba mu woote dialogue national parti politique yu bari daal di jóg daal di ne ñoom duñu duñ ca bokk. aujourd'hui mot bi ñu utiliser conseil constitutionnel à parler de concertation ñoom atepa ak yooyu concertation yow nga wax ne réconcilia euh, commission euh, en tout cas euh, kuréel boo xam ne euh, dañ ko dàqantalee réconciliation nationale bo xamni ni euh, kilifa diine euh, ñoo ci dugg léegi nag loolu noonu euh, papa à qui il faut le dire et comment il faut le faire. loolu serigne si ñaakuñ fayda duñ ko sétane mhm. serigne si duñ nang mukk Atepa jiite leen wala alintine Tine. Mhm. Aliou Tine daal nañu Tine. nañu tin. mais papa Alioune moom euh, lan mooy kii bi lan mooy le si parce que man gis naa sànq ba léegi yaa xaw a. xam nga ma Alioune sax xaw ma ko beneen la fi mës a ñëw. ci mhm. jamono ji fii euh, ci fin wu rek ñu waat boobu mi ngi doon. am na lu doon doxal mu ñoom euh, Compaoré rek yooyu boobu ji nga mhm. ji jamono. waaw ñoom ñaar ñii ngay tudd. Mhm. daawuñ jógee booba Wagadugu. Atepa ak Alioune. nekk ay agent bu Compaoré. Mm-hmm. moom itam mu nekkoon fi agent de la France di gérer sous région bi. Mm-hmm. waaw donc yooyu yëpp am na yu bari yu ne ci biir. Mm-hmm. mais ñoo daal wax dëgg yàlla. doy nañu ma seen biir liggéey ci seen waxtaanu biir salon nangam. mais loo xam ne Sénégal mën na cee tàkk. ñooñu wax dëgg doyuñ ma ci. waaw mais mais mais papa ni nga waxee ne il faut que ñu implication. dama ne ñoom waruñ ci woon a dugg. waaw lu tax. mais Pierre yow yaa ngi 30 ans ñi di Casamance at mu ne nga jox la ay valise milliards nga yóbbu Casamance. ay valise milliards ay papa ko jox ay valise milliards. ah Ablaye Wade da ko wax de. mu ngi fii nee na je les nourris mi ngi nii demul fenn dégg nga ñoom ñoo ko doon yóbbu xam nga loolu rek li sotal institution bu toll président de la république taxaw joxoñ ko wax ko li ko wax.

ñun ñëpp a bëgg lu neex suñu jabar yi di man ak keneen ak ku dul ko. ah, ah déet ah plus fort nag plus fort rek lay doon. <laughs> loolu waaw ah, loolu loolu kenn mës dara papa mais mais mais tey jii papa tey jii yéen marabu yi euh, euh, est-ce que tey euh, du am fii ñu taxaw ne bu ngeen ci bëggee bokk xëy na pour pour seen ay intérêt bopp la. xëy na ay ay nangam. man loolu luñ ma ko waxal ndax man am naa soixante-dix-huit ans. Mhm. amoo benn intérêt te maa ngi fay samay soxla. soxla woo daal si président Macky Sall ah man de Macky Sall. Mhm. wóor na la ne daan naa ko fi may xaalis te wax naa ko te weddiwu. keroog gis nañu si ana benn vidéo buy circulé ah, ah, euh, defe naa. xamatuma fan ngeen ban kii la woon ba nga jóg eh, ngeen waxante yéen ñaar. waaw ay ay ay kaddu. waaw nga wax ko daal mën la noonu. ko ne dama ko ne ay 400 mètres yoo xam ne diggante tali bi ak eh, suñu maam El Hadj Abdoulaye fi mu tëdd. Mm-hmm. ñu war koo defar. Mm-hmm. ma ne ko boo ko defarul ñu defar ko. Mm-hmm. defaru ko man commencé naa ko defar naa la jox léegi image yi mi ngi fii. ah kon defaru ko ba léegi. man samay sàmbatali dem na fa bu yàgg di liggéey. waaw.

Euh, opposition bi. Hum. euh suñ dañoo émission defoon nga dressé won nga ben portrait. Hum. ci opposant yi nga xam ne nek fi nekk. Hum. Euh, waxoon nga euh, joxon nga ay bons points. euh ki di Déthié Fall. waaw. euh malika ba malika ko xawon nga ko jox toute moyenne mais pas trop. waaw léegi nag diggante bi nag. Euh, affaire yi soppeeku na parce que tey on a ñu xoolee rek euh, candidats ñi jall oh. ci euh, élection pour le moment ces 20 là mënañ japp né ne ñoy euh ñom ñoy représenter la recomposition politique de demain. évidemment Ousmane Sonko bokku ci na ñëwaat nak ci cas Ousmane Sonko particulièrement wa ci 20 yi. ci vingt candidats yi euh, donc Déthié Fall mi nga pronostiqué woon mi ngi ci euh, Bassirou Diomaye Faye euh, ma nga ca ay kii Boubacar Camara ay Anta Babacar Ngom ak ay docteur wa ñaa ñangam nangam ña nga ca léegi aujourd'hui ñu gis ne ñoo ñu bees lañu ci lande no politique pour la plupart te yoruñu appareil bu diis seen ginnaaw léegi est-ce à dire ñeneen ñëpp ñu nekk ci ginnaaw mooy ay ñoom Mali Gakou ñoom ay ay ay ay xam nga léegi astu hmm. yéen da ngeen di wax du ngeen concentré seen i wax ba da ngeen wax yoon sax dafa juuyoo hmm. xam nga ne nga Mohamed Abdallah Dionne hmm. wax na ne moom du bokk ci élection yoo xam ne conseil constitutionnel bi moo koy organisé d' accord te xam nga ñoom nee nañ bu dee benn candidat démissionné na lépp day daanuwaat wala waxoo loolu

on ira toujours au 15, euh, au 15 euh, décembre, voire 2025, 2026. Mais pape, démission, ou bien euh, euh décès, en cas d'empêchement Am décès ou démission d'accord Les les les, man bala maa ñëw ci ci ci man opposition d'abord la bëgg la la la a une donc opposition à en l'état Il y y a wax opposition ak tey ji ñu ak. soxna si. Hmm. suñu bàyyi bàyyi na si yàlla yokk leeram. amiin yaa rabbi toog di lekk moom ndeysaan ku fiixoon la. Hmm. li ko yàlla di màggal yëpp daf doon wax di ree di ñu reeloo. Hmm. di ñu jàngal àddina. mu ne taalibe bi dafa toog ak sëriñ bi ñu teg cere ji. sotti ñeex mi. ñeex mi yëpp di dem ci kanam taalibe bi. taalibe bi léegi nag sëriñ bi bëgg ñeex mi ñëw ci moom te bëgg la wëlbati bool bi bëgg nu mu naxee taalibe bi mu daal leen ko ne taalibe mu ne ko def def baaraam ci jere ji ne ko bërki démb jàngal naa la mokkaloo <laughs> waaw day bër na am la ñëw ci ñeex mi mhm. mu ne ko démb jàngal naa la mokkaloo mhm. muy ñaar mu ne ko tey jàngal naa la mokkaloo mhm. bu ëllëgee boo mokkul dinaa la dóor a dóor dóor ñax mi yëpp ñax mi yëpp dem ci kanam sëriñ si waaw taal bi toog mu yàgg ne ko sëriñ mu ne ko ci fan yi mu ne ko sama xel mi dafa jaxasoo jaxasoo <laughs> jaxasoo jaxasoo waaye man itam affaire bii hmm. sama xel mi def cee jaxasoo jaxasoo jaxasoo <laughs> <laughs> stratégie en tout cas euh, euh, émission bi euh, pratiquement jeex na waaye li ma si jàpp daal mooy yow li nga appel bi nga wax. Mm. ne buñ ci dugalee buñ ci buñ ci buñ ci dugalulee sëriñ si du sotti. déedéet fii. Mm. sëriñ si ñoo ŋànk mi lu ko doon coup d'état am na fi bu yàgg wala révolution wala leneen. sëriñ soo suñu négligé. ci seen tekk googu. danañ danañ màtti seen baaraam de. waaw mm. ah. alors. sëriñ si dañoo war a bokk légalement. war nañu am sax benn seenaa boo xam ne sëriñ si ñoo cay nekk. di wax liñ bëgg ñeneen ñi di ko kii ak yooyu mënuñ leen rek def leen présence zéro. cest nawle euh, euh, euh, un pays atomique C'est l'Iran seeni nawle fii ci Maroc c'est des shérifs c'est le royaume Nous, Nous nous ñu leen comme ça ah non d'accord Lolo, c'est une turpitude coloniale mhm. qui doit disparaître sinon nous du régler d'accord